dafa ne je cite la Falémé est en état de mort clinique la Falémé est en état de mort clinique waaw Ahmed Diané Séméga mi wax loolu te muy liggéeyal suñu réew Sénégal ak yeneen réew yi mu bokkal OMVS kon monsieur le ministre est-ce que mun nga ñu wax naka la Ahmed Séméga mën a wax loolu ba pare ngay signe ay autorisation chinois yi pour ñuy wut wurus ci biir Falémé te xam nga ne dinañ sotti biir Falémé cyanure mercure miti mercure monsieur le ministre ndax yow di nga nangu naan ndox bu am cyanure ndox bu am mercure ndox bu am méti mercure monsieur le ministre ndax dinga nga nangoo sangu ci ndox bu am mercure cyanure wala méti mercure askan yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Sadatu ñu ngi naan ndox bu am mercure cyanure ñu ngi sangoo ci ndox bu am mercure ak cyanure donc man dama bëgg a comprendre gouvernement du Sénégal ban logique lay demee wala ndax parce que ñun député yi du suñuy doom ñooy naanee ci Falémé bi moo tax mun nañ toog noppi ci lii xew Falémé xew Makko xew Tomboronkoto ak ñoom seen wala ndax ñun ministre du gouvernement du président Macky Sall comme suñuy doom ak suñuy jabar du ñu naan ci Falémé du ñu sangoo ci Falémé mun nañ bàyyi ñooñu baadoole yooyu ñuy naan ñuy empoisonner la Falémé yaa ma ko gën a xam. am na ay jàngoro yu bees yoo xam ne askanu Falémé ñu ngi koy jànkonteel yoo xam ne xamuñu ko woon ndax cyanure mercure ak ñoom seen moonte de monsieur le ministre février mille vingt et recevoir nga benn délégation Falémé nga wan leen ay photo yu ay photo yi ñii dëkk Falémé ndox bi lu muy def ci ñoom. ñoom ñii ñëwoon joytu li xew Falémé ñoom sax dañoo tiit nga ne leen di nga def sa kem kattan ngir dootoo ti benn autorisation nga ne leen di nga teg sa tànk Falémé pour ñëw xool yàqu-yàqu orpaillage ñu toog ñoom jékki-jékki ci benn réunion Falémé dégg ne accord jox nga autorisation exploitation semi mécanisée ay chinois nga war leen benn du yow yaa leen war gouvernement Sénégal moo leen war état Sénégal moo leen war benn deux vingt et un février ak tey tegoo sa tànk Falémé liñ leen promettoon waa di tontu bu ci kaname lii nekkul dëgg mooy li ngeen di teg ci loosu waa Falémé lii nekkul dëgg mooy ñuy posone waa Falémé amatul jën gis ngeen li dal la Rose ba couleur bi changé ndoxu Falémé dafa changé pour ñu xamul fale pour ñu xamul Falémé mooy la l'affluent le plus important du fleuve Sénégal maanaam loolu dafa nari a yéeg yéeg yéeg yéeg ñun chinois yi ñooy ñan ba ñun lu ñu laaj ci dëkk bi ñu jox leen ñuy ubbi China mool fii amuñu autorisation il a fallu ñu tëgg ci table bi pour ministre bi xam ne China mool ubbi na xam ne ils ont ouvert illégalement ba pare mu jox leen sanction dix millions ñun ñun ñoo tax ñun ñoo ko wax chinois yi ñooy ñan ba ñu leen di permettre ñuy posone foofu te du ñoom rek ñun Sénégal nous ne voulons plus être la chaise turque de qui que ce soit la chaise anglaise de qui que ce soit la chaise chinoise de qui que ce soit la chaise française de qui que ce soit nous Sénégal nous voulons être la chaise du seul peuple sénégalais. Le président Macky Sall peut prendre la décision d'être le coursier d'Emmanuel Macron, d'être le coursier de Paris, d'être le coursier de la France. Mais nous, peuple sénégalais, nous refusons que nos ministres, nos gouvernements soient soumis à l'impérialisme, soient soumis à tous ceux qui viennent dans ce pays-là et on leur permet d'empoisonner les braves peuples de 13 villages de la commune de Sadatou. Ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer cela. Mais ça va changer. Ça va changer parce que Ousmane Sonko, cinquième président de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, cinquième président de la République du Sénégal, va changer cela, va inverser cela, parce que les autres peuples ne sont, plus, ne sont pas plus intelligents. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Khady Dieye pour trois minutes. Demba Diop, le suivant. chers collègues